ko def jëmale ko ci sénégalais yëpp rawatina ñi nga xam ne ñooy kilifa diine ci réew mi di ñaanal yàlla di ñaanal réew mi yëpp yàlla yàlla dolli leen wér te fekk seenu fan te jàmmal leen jàmmal réew mi alors ce point de presse que nous tenons aujourd'hui et fait partie des points de presse les plus importants, certainement, compte tenu du contexte que vous connaissez très bien. Nous aurons à aborder et à développer un certain nombre de thèmes par des leaders de Yewwi Askan Wi. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui à prendre la parole. Je commencerai par euh, le président Détiefal, après à maître Ngagne Dembetouré, suivra Madame la Présidente Aydem Botch, après Cheikh Tidiane Dieye, suivra le ministre Moustapha Guirassi, et viendra après Monsieur Biram Souley Diop, qui est le président du groupe parlementaire de Yewi Askanui. Après Madame Maïmouna Bousso. Monsieur Cheikh Youm, qui est le secrétaire général du PUR. Et moi-même, je conclurai. Voilà donc euh, le format que nous vous proposons aujourd'hui. Ceci étant dit, Je passe la parole au président Déthié Fall. Merci beaucoup monsieur le président Habib di gërëm di sant sénégalais yi ñuy seetaan yëpp. di profité ci bis bi ñu jógee muy bisu tabaski di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan sunu mu may ñu fekkee que déwén yu bare bare bare ñaan sunu borom lii suñu mbébét ci Sénégal mu may ñu ñu mottali ko ak càmm. démb nag déglu nañu le président de la république Macky Sall mu wax ni du def troisième mandat mu indi émotion bu bare ci biir Sénégal. mais loolu ñuy wax rek au niveau de Yewwi Askan Wi que mënoo renoncer li nga xam ni amoo ci droit ñun lu ñu yàgg wax mooy amul droit ci troisième mandat donc jóg ni damay respecter li constitution bi wax respecter li nga xam ni yaa ko bind ni lii maa ko dugal pour constitution bi mën a appliquer wu ci man donc loolu boo ko defee acte bu ñuy constaté la ensuite di xaar yeneen acte yi nga xam ni yu am solo la pour sénégalais yi am solo ci jàmm réew mi nga xam ni ñoo ko bokk yeneen acte yooyu mooy une participation inclusive de tous les leaders qui le souhaitent ci élection présidentielle yi nga xam ni moom la ñu jëm beneen acte bi mooy la libération de tous les détenus politiques parce qu'il ne faudrait pas que acte boobu mu def doon une ruse pour gën a mën attaquer yenn leader opposition yi gën a mën attaquer le président Ousmane Sonko donc di wax ni renoncé wul à un troisième mandat dafa def lu dul respecter li nga xam ni moom la constitution bi wax et que nañ ci acte di xaar yeneen pas yu important yu mu war a tey jii nii def mu jëm ci képp ku bëgg bokk bokk képp ki nga xam ni mi ngi ci prison yi ñu mën la libérer parce que amul droit wu teg foofu kenn di wax nag ni yeewi askan wi jàmm la bëgg ci jàmm la mos a mais jàmm ñaar ñoo koy séq muy pouvoir ak opposition et à chaque fois c'est le président Macky Sall qui accule l'opposition donc dire très rapidement que nous avons entendu hier le président de la République Macky Sall qu'il renonce à un troisième mandat auquel en réalité il n'a pas droit parce qu'il faudrait renoncer à quelque chose dont on a droit mais il nous a toujours dit que c'est lui-même qui a introduit ces dispositions de la Constitution pour se l'appliquer. Donc si aujourd'hui il se conforme à ce que la Constitution lui impose, on ne peut que prendre acte et attendre de lui d'autres pas allant dans le sens de la pacification de l'espace public, de la pacification de l'espace politique. Et ces pas, nous les connaissons tous. D'abord, l'organisation d'élections libres et transparentes mais également d'élections inclusives qui permettra à chaque citoyen qui le souhaite et à chaque citoyenne qui le souhaite de pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais. Mais également libérer tous les détenus politiques. Ils sont nombreux dans les prisons et leur seul tort, c'est de se mobiliser, de s'être mobilisés contre ces forfaitures, contre ces violences qui ne proviennent de nulle part, qui ne proviennent nulle part que au niveau du régime actuel, au niveau du président de la République, Macky Sall. Donc il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler les leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisé. Et nous avons pris acte de cette décision qui n'est rien d'autre qu'une réponse qui était attendue de lui en tant que chef de l'État, à savoir respecter les dispositions de la Constitution, cette Constitution qui a clairement dit que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs et par conséquent, ce qui est attendu de lui, c'est l'organisation d'élections libres et transparentes, mais également d'élections inclusives. Je vous remercie. Merci, merci Président Dété. Euh, président, euh... mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin cher leader maa ngi leen di nuyu di leen nuyu yéen ñi fi tase waa presse bi di nuyu waa senegal di leen balu àq ci julli gi ñu jóge di nuyu suñu kilifa diine yi di leen euh, déwénal di ñaan yàlla yal na leen yàlla bàyyi sunu kanam te may leen wér ñu ngi nuyu le peuple sénégalais di leen ndokkeel nag peuple sénégalais la ñuy ndokkeel ndax peuple sénégalais dafa yegg ci dañ réer dafa yegg ci xam li mu bëgg te xam ni mu koy amee dafa dañ ci accepter lu mu war a accepter nangu bañ lu mu war a bañ di wax président ni ko loo def mu rafet de soo ko deful woon day ñaaw loo def mu rafet boo ko deful woon day ñaaw kon lii nga def rafet na loolu mooy soo ko deful woon day ñaaw waaye ñun dafa am ñoo xam ni dañoo jëloon lii mujj rekk muy seen ite ñun suñu itte la woon comme ni mu nekk itte senegal Sénégal yépp ngir rafetal deru Sénégal kon ku ko rafetal ñu jël def nekkoon na suñu ite ngir jàmm am ndax boobu dong lañu d'accord ni suñ ko deful woon jàmm du am kilifa diine yi nangu kook ñun dégluñu ci itam peuple bi ànd ceeg ñun doxal ko itam waaye nag ñun yamuñu woon ci loolu 2012 ba naga dafa am lu luñ doon xeex 2012 ba léegi dafa am luñ la doon dénku ba bi mujj gi dénku bi gën a sori moo di dañ ñu woon président ba nga toogee ba léegi justice bi yemale woo ko te dafa war a yem kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi war a jóge dañu ni duma doom làq doom dañ ko war a bàyyi ma di tudde woon ko cette gestion manichéenne bi nga xam ni maa ngi commencé di ko dénoncer depuis 2012 te xam lu tax tey nag danga tudd violence lu bëri ci sa discours waaye président violence boobu fi nga ko foogee du fi fi nga ko foogee du fi libérer les forces de l'ordre yi enquête ñu wax la ñan ñooy def li euh, ñan ñooy def violence sama ñaari oto te ëmat amul dara amul la ñu yeble ñu ñëw sama buntu kër taal ko ñu ngi koy enquête te xam naa ni instruction bi du dem fenn tant que ci sa kudd boobu billaay du dem fenn kon nag levé ko professeur daat bi matul trois jours lañu ñu fekk buntu këram otoom lakk ko à trois heures du matin ñiy wër di lakk oto opposition bi xanaa ñooñu defuñu violence te jotewuñoo ak ñoom dara kon booy enquête enquêtal parce que nag da ngay enquête ñuy enquête da ngay gëstu ñuy gëstu dinañ la jox ay éléments de preuve waaye ñu ne dinañ wut ay éléments de preuve moo tax duñu noppe dinañ la wax ne la bu fi wax di yem continuer di enquête situer les responsabilités d'accord nañ ci waaye bu justice bi jéng parce que justice bi bu jéngee rek musiba am troisième mandat bii nga bañ mu lakk dëkk bi ba tax nga sursuwaar ko ba nit ñi mën la gërëm ci loolu troisième mandat bi am na lu ko gën a garaaw mooy justice bu justul musiba naaru laay la <coughs> te justice baa ngi ñuy bëgg a indil problème ndax président da nga da nga tudd ay ñi la précédé mbooloom président bu la précédé ca lañ nett li ba ci li ñu fekkee ku ci nekk am na cas de bu ñu la tegal waaye sa grandeur nga nekk un grand monsieur nekk président de la république de tout le Sénégal nga jukkal suñu borom mooy tax ba ku ci indi complot parce que de tout le temps day am des esprits tordus yoo xam ne dañuy wut lu neex la chef ñuy def ay complot kon lii ñu teg Ousmane Sonko am na ñu ko doon def du temps de Senghor Senghor dàq ko parce que c'est un grand monsieur am na ñu ko doon def di temps de Abdou Diouf kooku moom dégg naa ko xam naa tur mu dàq ko ne loolu du fi amee. am nañu ko doon def du temps de Abdoulaye Wade ñu dàq ko kooku it xam nañ lan la kon tey bu demee ba ci yow ñuy def ay complot di ko teg ci sa nawle gor président dàq ko te teg lépp ci suuf leneen li ci des mooy dañu waxante woon ak yow processus électoral ca dialogue yu njëkk ya ñun bañu ñu dialogue ñi fi ne ñëpp dañuy dialogue mais xamoon nañ ne sa dialogue bii du jur dara te yow wan nga ñu ne du jur dara te président bu dee am na sa waxi euh, euh, renoncé ci mandat bi luñ la ciy gërëme mooy li nga war a def rek nga def mooy leeral ñu ci ñi àndal ñi nga àndal ñooy ñan mooy ñi nga àndal dem ci dialogue bi tegoo leen na ndax ñoom ñoo la ne woon demal cour constitutionnel ñoom du ñu wax ci troisième mandat bi dégluwoo leen synthèse bi kenn retenirul affaire troisième mandat bi nga ñëw wax sa wax mu yëkkati la wàcce leen ñeneen ñi nga àndal ñuy ay élèves ñeneen ñuy nekk di tëkku nit ñi di leen menacer di wut ku nu rey nga won leen ni kenn reyul kenn te damay bàyyi loolu baax na loolu mooy enseignement bi ñu tiire ci yow wan nga ñu ñi nga àndal ñooy ñan enseignement yooyu nag dinañ ko jël jàppe leen ko ndaxte nag histoire dafa war a joxe ay leçon leçon yi gaa dinay cher dinay metti mais histoire dafa war a joxe ay leçon kon président ci revendication yi ñun li ñu ci gënal amal importance mooy participation de tous les candidats élection inclusive buñ ko waxee nag dañuy yëkkati kenn koo xam ni dañ koy sant di ko santati bu ñu santee peuple bi parce que ba nga éliminer vingt deux personnes vingt deux candidats utiliser sa parrainage te bañoon nañ parrainage bi bañuy bañ parrainage bi amuñu kenn ku ñu xeexal nga xëy suba teel jàpp leader yëpp kenn taxawul xeex kon ba nga xamee ni jàpp nañ leader yi taxawuñu xeex ci parrainage bi bi février deux mille vingt et amee am ñu jàkkaarloo ak yow di peuple bi. am koo xam ne dafa ànd peuple bi jóg dama ne dañu daal di ne alhamdulilahi rabbil alamina lañ ñu imposé woon ci parrainage bi buntu assemblée ñu tëj ko kenn génnul kenn duggul ndekete am na benn force boo xam ne mën na jàkkaarloo kii ñu rejeté parrainage yu ay candidat ñooñu dese seen mer bi ko ruminer ñu fa bi 2021 jotee ñu ni am na force bu koy dindi kon président su fekkee ne da nga ne sa kersa moo la may nga renoncer ci lii ñu wax la ni la loo rus ak loo ragal ñooyam wasalaam merci madame la présidente